mariage bi waaw Youssou bàyyi Birane Ndour hmm. ma wax sama waxul woon loolu ma wax su ma waxul woon bàyyi doo yaa ilaha bàyyi Birane Ndour joyeux anniversaire Sénégal yëpp dañoo war a génn joyeux souhaité ko joyeux anniversaire hmm. barke alxuraan billaahi ko yàlla yokk na ko yàlla yokk naan may bés bi tey lan la def. bés bi tey ba léegi maa ngi jooy Mbaye Birane Ndour billaahi wallaahi tallaahi maa ngi jooy maa ngi jooy. mais borom anniversaire bi bon geste la mës a def bu la gën a neex boo xamante ni Youssou def na ko mu neex la. si jàppale ndaw ñi ubbi na ay société ubbi na ay société sénégalais di si liggéey loolu rek geste bu noble la. du dëgg doom ji di ko def tamit te yàlla rek tax Birane Ndour sa xarit mhm. Birane tamit di ko def waaw Birane daal du social man daal sama ah, na si Birane Ndour sama xol si Birane Ndour vraiment Mm-hmm. te anniversaire bi. Mm-hmm. Sénégalais yi xam naa ne dinañ ko souhaité. Mm-hmm. papa yu waaw waaw ñu koy souhaité bu baax a baax a baax vraiment. dama bëgg ku bëgg ku ma bëggal ku seetaan vidéo bi ku bëgg Youssou Ndour may ko kër wala nga def joyeux anniversaire. mais Mbaye euh, du ma waxtaan ak yow te am na loo xamante ne xew na. te ngay suñu mbokk di suñu xarit di suñu soppe. am loo xamante ne dal na suñu mbokk yi nga xamante ne mooy jeune reporter yi. Aby génn. def ay plainte hmm. jëmale ko ci ñi nga xamante ni mooy reporter yi hmm. loolu bi nga ko déggee naka la la def hmm. ah maa ngi koy lire sànq mais ah nag wuy lan lañ def moom ah mais xamuñ xëy ah, na nañ leen jégalu nañ leen ko nañ ko jégalu baax la nañ leen jégalu xam man mënu maa wax dara Aby ndax Birane Ndour ndeysaan ah, ah. tàng na trop Mm. mais penalty bi euh, jëmale na ko ci jeune reporter yi est-ce que tamit jotul woon gars yi dem baalu ko. waaw dinañ ko nañ ko baalu ak parce que Abdou Ndour la nañ ko dem baalu ak waaw parce que. dafa am dafa kii daal mooy nit boo xam ne dafa ko am fula la daal. Mm-hmm. soo bokk si ay showbiz quoi. Mm-hmm. Mm, mais nag su ma sañoon nag mu jégal leen parce que mu jégal leen parce que xam nga rek. presse si loolu léegi lañ mën a amee xaalis. pour di wax di bind mais du dara daal man ah dañ leen jéggal rek billaahi war na yàlla dañ leen jéggal bu baax a baax a baax su beneen yoonee. ñu bañ a wax si moom. ñu bañ ko defati. Mm-hmm, du ñu wax bu ñu waxati si moom. bu mm-hmm. ñu bind si moom bu ñu def dara waaw ah. kon fi bëgg ko. Mm-hmm. mbay mënuñu tëj nag. te duñ la laaj sa xarit. Mm. Ndeye Gueye ku ne Ndeye ne xaritu mbay ko caa. Ndeye juboo nañ léegi la ma juboo ngeen. waaye moom it juboo na ak ki nga xamante ni mooy. Papa Boy Djiné. ah juboo nañ Sénégal yëpp doon ko xaar doon ko ñaanal loolu. Mm. mbay yan kàddu nga si sànni. waa juboo bu fa fexe ñu juboo rek dara seytaane bañ toggati seen laxasu si seen diggante yàlla aar leen ñoom ñaar ñoom ñaar ay xale lañ Ndeye du mag de Ndeye 19 ans la am. dégg xale bu ndaw la. dégg mu am 19 ans. billaahi 19 ans la am dégg am carte yor naa ko. ak xaalis xanaa dégg kon daal jugement mbay. non dégg non jugement wul dégg dafa teel a fecc. dafa teel a fecc. dafa teel a fecc. Hmm. Ndeye dafa teel a fecc 19 ans la am. mais Mbaye Gueye <laughs> la mu ne am 19 ans mbay. 19 ans la <laughs> allo wuyul ba pare maa ngi nii grand théâtre <laughs> ba yam du fit hmm? Sidi Diop mooy répété Sidi mu fit ki xalaat sa la waaw ah, kii mooy awo bi <laughs> ngeen déggee dix-neuf ans la am dix-neuf ans la am ko weddi ah non man li moo dëgg yàlla gëmmu ma ko nag xaar moom la carte d'identité déedéet déedéet carte d'identité jàmbur c'est privé bu ko wane dama lay woon rek jugement bi xaaral ma photo woon naa ko de xaaral <laughs> mbay mbéygee dix neuf ans la xaaral dañ bëgg ñu xam ne mbéygee xale bu ndaw la Sénégalais il faut ñu xam ko passeport ba ngi nii mhm. waaw waaw gis naa ko. bi muy bi muy changé passeport. waaw gis naa ko. baax na baax na mbay. ma xaar carte d'identité laa bëgg génne. bul génnee carte jàmbur bul fi génnee yëpp. wan man dinaa gis. <clears throat> man wan ma si suuf rek dinaa gis mais jarul ñu koy publier yëfu jàmbur. xam nga ah. yii ay vie privée la. yax xale bu ndaw doo dama bëggoon Sénégal yi xam ni léegi xale bu ndaw la. Mhm. kon ñi koy lam-lamee wala di ko dëkkal fu mu dëkkul nan déggee moom ak papa booy jinne ñoom ñaar mënuñoo ànd dañu seen âge yi àndul ak yooyu dañuy juum rek dañuy juum rek mais xale bu ndaw la. Sénégalais wax loolu yan kàddu nga leen di dénk mbay. xale bu ndaw a ndaw a ndaw la xale bu ndaw xale bu ndaw la barki yàlla wóor na yàlla xale bu ndaw la xale bu ndaw la léegi xale bu ndaw yàlla na sëy bi barke yàlla nañ am doom. doom rek lañuy ñuy jooy si ndéygéey tey dina ko am mm-hmm. mais moom defoon na sorti na mbay génnal si man mbay lan nga def ndéygéey ba mu doon def waaw wax bee ko neexul rek moo wax na dëgg da koo bëgg wax bee ko neexul ni nga waxee moo ko neexul wala da koo bëgg billaahi ah bi gars yi doon def. ba pare xam na ni dof laa <laughs> xam na ni wiruma day géey si boppam. man dama am ay kiitu dof man wéruma na ko sénégalais yi xam encore une fois su may wax nañ xam ni dof mag la man wéruma man kii dof laa man wéruma billaay dof la billaahi wéruma kon bi ngay wax ndey ngay yooyu wax boobu waaye damaa xamoon fa laa nekk boobu xel bi new fi woon. boobu xel bi nekk woon sama këyit chaque jour ma yóbbu ko soo ñëwaatee sama kër naa la woon sama këyit billaahi jot na tey ma wane sama këyit. kon ñu waajal dem anniversaire ba. papa Youssou. waaw incha allah si kanam tuuti si. si pare waaw si kanam tuuti.